beaucoup Matar maa ngi leen di gërëm yeen ñi nga xamne yeen yéen a couvrir exactement cérémonie bu am solo bi bi nga xamne tay dañ doon ñew di remettre exactement équipement yi ñi jëndal euh, Soukra bu kungel te suñu rak suñu collègue Amadou Fafana diriger len tay nak pour ñu ñëwaat ci historique bi ak li nga xamne mom mo sabab besbi bi dafa ni Amadou Fafana dañoo yag cheminer ensemble bokon di nek fini si zone une B bi nga xamné man ma ñëk nek président zone bi mom mu nekkoon ci aussi tamit président commission arbitrale ju nekkoon aussi tamit membre si commission si euh, si si zone bobu liggéey si liggéey bo xamné bu am solo mom ak ay natango ñu melni ay ñom Pape Biram Faye ay ñom Zaldiko ay ñom Amath Suzanne Camara Amady nak nekk nit ko xamné nit ku bax la té li ko xamé moy bëgg mësa bëgg li def bëgg ku Koungheul bëgg li nga xamné mom mo moo nekk arbitrage te damay wax man à chaque fois en tant que un produit du mouvement nawetaan nawetaan yi wala mu sport bu mu mënte ko don su jaaree yoon rek yalla dañoo xamné ne am ay arbitre yo xamné yu bax suñu amé arbitre yo xamné ñu tàggat tàggat bo xamné bu rafet duñ am ben yoon ay problème ci ay match yo xamné yu ñuy def loolu mo tax té arbitre aussi ñun dañ leen di faté di leen traiter comme ay parents pauvres té ñom lepp lo xamné muy subvention muy lim meunte ko don rek war nañ leen mën jox li nga xamné ne loolu mooy seen cër motax dembu bima indé

mooy au lieu nga ma koy defal man rek nga defal ko arbitre yëpp léegi nag comme arbitre yi quatre lañ doon te am na ñoo xam ne ñu fi nekk léegi defal ñu ko nga jëndal ñu ay chaussures yoo xam ne de chaussures yoo xam ne de de de qualité utal ñu ay maillots yoo xam ne de qualité moo gën nga di ma jox man rek ma ne ko Amady mu ne ma waaw ma ne ko lu rafet lu rafet rek lu tudd li nga wax d'accord naa si loolu moo tax ma jël exactement mayo yi ak dàll Adidas yi jëndal ko si li nga xam ne mooy recommandation Amady Fafana

waro fàtte fi nga jaar lolu motax lu rafet li ñu def ko ñew pour un début joxe mayo arbitre yi ak dal yi et ce n'est qu'un début te Inshallah, allahu rabbi on compte continuer si lu bax li nga xam def nañ ko te dinañ continuer di jël suñu loxo di ko dugal si commission arbitrale bi parce que xam nañ ne ñii ku leen jappalé nawétani dana dem ku leen jappalé sport bi dana dem ci kanam lolu mo taxone Matar ñu def cette cérémonie bi di gërëm ñi nga xam ñëw nañ fi ñëpp di gërëm suñu grand frère Abdou Ndaw ñom Papa Ndaw ak Kamal Bey président de l'ASC Jubo ak toutes les personnes qui ont assisté à cette remise des équipements. benn mo rek balaa nga jeexal démb tamit dafa lu melni waxu ko sa biir wax sax que sa ASC Jubo tim jaar nga ko. jox leen merci beaucoup Matar parce que wax naa ko démb waa ASC Jubo charité bien ordonnée commence par soi-même te nit waroo fàtte fi nga dëkk waroo fàtte fi nga juddoo fi mbokk nag bu koy wax du koo bokkal deret rek mbokk bu koy wax mooy koo bokkal réew koo bokkal région koo bokkal département koo bokkal commune koo bokkal quartier loolu moo tax ASC bi fi la fubalee cadet football fi senior ba nek président zone bi may dem président zone ci turu ASC Juboo e la démé té loolu yépp nak grâce à Abdou Ndaw mii xëf moo ma depuis les années 92 moma ñëk njëkk a licence bi mu démé Italie dima continuer dima jappalé jàppale loolu mané. tax ma Dakar am fa dara lu mu touti tuuti war naa xalaat sama waa koñ ma jëndal leen mayo yi des maillots de qualité confectionné ko out ay ba out ay culottes ut ay mayo bu si nek mu mat mu ñëw indi ko jébbal ko suñu ASC té ñom ñëpp kontaan nañ dembu la remise a été un moment d'allégresse de gaieté et ensuite vraiment tout le quartier était content voilà. ñu am contentement bu rëy ñoo fi nii di recevoir des mains de monsieur Babacar Faye euh, ay don mayo ak euh, ak ay dal de qualité ñukay koy bu baax diko gërëm diko ko ñaanal yalla yàlla yokk.

dañuy kontaan bu baax ci moom. Euh, di ko wax ne moom tamit xam nañ ne c'est un pur produit du mouvement sportif. moo tax mu am flair boobu wax na fi léegi relation yu mu am ak Amady na mais en dehors de cela ñun tam am nañ ay relation ak moom. parce que dañoo yàgg ci nawetaan ak moom mu ci jàpp ba métti wax na ko léegi dañu toog ay match yu bëri du ñu fay ñu jàpp mais mosul cee indi benn jafe-jafe mu toll mu ngi ñuy jàppale. kon tey mu ne ne lii ce n'est qu'un début ñun tam ñu ngi koy wane ne ko ubbil nañ ko suñu bunt yi bis ñi ki tey ñun tam dugal nañ ko suñu biir. Et cela va être inscrit dans les annales de notre histoire. Si pas arbitrage dañ ko ci bind. Et on a on va informer nos supérieurs Mais, ah ñun di guret ci Koungheul nit jóg jox ñu ay mayo même les la la mairie le conseil départemental pour ñu indil ñu lii musul am dañu fi def finance sax duñ ko jot. Babacar moom nekk une personne ordinaire euh, nekkoon ci fu mu ma nawetaan bi jóg xalaat am xam xalaat bi di ñu ko jox wax dëgg yàlla dañ ciy kontaan di ko ñaan yàlla mu yokk bu vous dërëm la na ay millions yalla on a ba suñu dom on fay suñu lool wax on a perdu le fil de notre euh, de nos idées mais wax sommes yalla content. nañ baax baax té ñu koy ñaanal ko ko parce que ku ne xamna ñun instant bi arbitrage Sénégal nous sori ni ci nous. def championnat régional championnat national Ligue 1 président bi ay Ligue 1 tey kii élite la am nañ fi ay gauche yoo xamante ay arbitre yoo xam ne ay arbitre élite lañ kii préfet la tey Salim mi nii am na yeneen préfet fédéraux yi fi nekk kon jàppale ñu dafa baax bu ñu jàppale ëllëg bu ñu tuddee tudd Koungheul daanaka ñun ñëpp la ñuy tudd mais duñ tudd Babacar duñ tudd Moussa duñ tudd Amady dañ naan waa Koungheul la ñëpp di ko téetaroo kon ñu ngi oo waa Koungheul yëpp ku ci mën jàpp mu jàpp ci temps yi passé même pas 10 jours jënd nañ benn matériel arbitrage yi mooy kit yi ngeen di gis ñoom ñuy takk daanaka 500000 la ñu ko jëndee 500000 bëri na te loolu bu ñu ko defee pour Koungheul bay nekk ndaare moo tax kon ñu ngi oo ñëpp jàpp ci ñu gën a jàpp ndax euh, arbitrage Koungheul gën a jëm kanam ñi ñu tudd fu ne ba ñu am si ay internationaux Babacar merci yàlla na yàlla fayal la yàlla yokk la jërëjëf